docteur Edouard Diouf euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna bi. nga nekk expert en eau et environnement kon tey ji laaj bu njëkk buñ lay euh, laaj moom mooy Dakar vendredi dernier taw bu métti moo fi daal di euh, wàcc ñu xayma ko ci cent vingt six millimètres tax nag dëkk bi di jànkonteel ay jafe-jafe yu métti ban jàngat nga ci am. waaw soxna si balaa ma wax peut-être ma xalaat ci li xew maa ngi lay ñaan nga permettre ma ma jaale famille am. Euh, en tout cas euh, jafe-jafe ci bi xew di masawu tamit bépp Sénégal yi boo xamante ni euh, ndox mi instant yi ñu ngi lay créer ay jafe-jafe waaw su may ñëw ci ci ci laaj bi li xew Dakar nag fu ñu xam ndox fu ñu jàng problématique doo ci ci ci ci dëkku taax yi dafa di loo xamante ni du lu ñu bett waaw lu tax du lu ñu bett parce que euh, Dakar di Dakar dafa di dëkk boo xamante ni euh, ni ñu bindee dëkkuwaay bi dafa dese sóoraale euh, ndox mi ndox dafa di loo xamante ni boo ko sóoraalewul ci li ngay def moom ndox mooy nangul mu moom te loolu moo ñu dal ci région région Dakar donc maa ngi doon wax sànq ñun ni ñuy amee suñuy territoire maanaam am région de Dakar am ay département ci biir région bi nga amay commune ndox mi tamit noonu lay fonctionner waaw ndox dafa am espace am bu mu moom moom moo ko moom te du ko négocier ak keneen espace boobu moom la ñuy wooyee bassin versant et boobu espace dafa am frontière frontière la ñuy wooyee la ligne de partage des eaux ci biir espace boobu noonu li ndox mi moom dafa am yoon ñun suñu Dakar am na autoroute suñu Dakar am na VDN suñu Dakar am na route des Niayes ndox mi tamit ci territoire am am na yoon su muy jaar yoon principal am na yoon yoo xamante ni euh, mën nañu ñëwee yoonu secondaire tertiaire et cetera et cetera te Olof Njaay dafa wax ne ni euh, yoon euh, du bàyyi ndox du bàyyi yoonam ndox du bàyyi yoonam loolu la gis souvent ci. ci ci ci problématique inondation yi ci ci ci Dakar euh, puisque dañuy tabax dëkk bi te bàyyi yoonu ndox bi ndox bi dafa ñëw amul fu mu jaar puisque amul fu mu jaar lan moo ko des ndax moo ko desee dugg suñu kër yi yàq lu mu yàq waaw te mu doon loo xamante ni lu métti la alors euh, ginnaaw loolu lan moo ñu yóbbee yëpp mooy ñàkk a respecté liñ technicien yi wax ne ni lii lañ ko war a def su ma nee technicien mooy wan ñoo xamante ni ñoom ñooy def li ñuy wax planification ñoom ñooy planifier espace ñoom ñooy xalaat suñu espace bi naka lañu ko war a jëfandikoo naka lañ ko war a utiliser lan lañ war a teg fii lan lañ war a bàyyi loolu bu xasee ba xalaat ko bindi ko ba teg document sur la table ah buñ ñu ko respecté wul tamit euh, lépp lu ñu mën a daal ñu xam ne ne ñu ñoo ko ñoo ñoo ko ji léegi dañ dañ koy góob tout simplement nous faisons que récolter loo xamante ni ñun ñoo ko semé malheureusement ginnaaw loolu tamit problème urbanisme baa ngi fi euh, urbanisme dafa am norme boo ko respecté wul tamit dangay ngay gën a yokk problème bi euh, xar mi karaw mooy lan ndox mi mu jóge sa kër daaw fu mu war a jaar pour ñu mun ko collecté yooyu boo ko jaaralee fu la neex tamit euh, problème yi ñuy am mooñ ci mooñ ci mooñ ci fekk donc ci tënk daal ñàkk respecté yoonu ndox ñàkk am ouvrage yi mat te jàkk ñàkk tamit euh, euh, entrepreneur yenn yenn système yi moo ñuy jural li ñu li ñu gis nii te ñu koy ñu koy ñu bu baax a baax. est-ce que docteur lu ni mel mën nañ koo jàppee comme euh, catastrophe euh, naturelle waaw wala déet parce que dégg nañ ci ñenn autorités yi dem nañ bu koy tuddee catastrophe naturelle mën nañ ko dugal foofu waaw wala déet. waaw catastrophe naturelle mën nañ ko wax parce que li ñuy dundoon keroog dafa yéeme. waaw dafa yéeme. Euh, non seulement dafa yéeme euh, mu doon loo xamante ni taw bi moo ko indi parce que taw bi moom mooy justifier le caractère naturel justement de la catastrophe euh, bu taw buy ko mu am ndox bu bëri ndox mi yàq yàqal ñu lu bëree bëree bëri dem na ba am ci ñu ñàkk seen bakkan ñu leen di ma masawu loolu kese doy na pour ñu tudd catastrophe bi bi bi situation et catastrophe bi ñun comme ni ma ko waxee. Euh, léegi nii nii nii en tout cas ci depuis vendredi bi ñu ngi koy joytu mais euh, problème catastrophe boobu mën na continuer parce que mun na euh, affecté suñu wér gu yaram waaw lu tax parce que ndoxu taw mi day mélanger ak ndoxu foos ñu ñëw ñu ngi gis ko xale yi di ci fee ñi amoo benn pexe lu dul xuus ci ndox mi jàll loolu yëpp mën na la indil mën na la indil ay ay ay ay ay ay gàllankoor donc situation bi moom buñ ko nee duñ ko qualifié de catastrophe amul luñ ci exagéré parce que dafa jëg yoon dayoo euh, nga gis ndox mi di walla walangaan ba yóbbaale oto euh, loolu moom du loo xamante ni euh, lu ñuy gis la souvent donc moo tax it ñu war ko bàyyi xel bu baax a baax daa doolew ndox dañ ko war a te buñ buñ bañee jot ci doolew ndox bi nañu fexe ba respecté ndox mi fu mu war a ñuy wax ni wàllum euh, dérèglement climatique la euh, ci àdduna bi yëpp est-ce que euh, lu ni mel sa xam-xam màcc ci est-ce que da koy dëggal te boo ko dëggalee tamit ñan ñoo ci am ay responsabilité waaw événement yu mel ni effectivement buy am. ku nekk dañuy tourné gëstu xool ndax euh, changement climatique am déet waaw l'un dans l'autre bu ñu ne moom la tamit euh, mën nañu ko mën nañu ko mën nañu ko dëggal parce que euh, ni ñuy gisee taw bi léegi nu muy bindoo dafa uteet nu mu doon nu mu doon nu mu doon tawee maa ngi wax bu nawet bi commencé ba tey daanaka ñaari taw yi am doole lañu am te pourtant ñu ngi ci mois d'août ok ñaataw nu ñu koy nu ñu koy euh, nu ñu ko mënee apprécier dafa di tox boo xamante ni dafay taw ak doole ci benn biir bu gàtt ci benn fànn benn gox parce que taw vendredi bi du Dakar yëpp moo taw te Thiès amuñu woon ndox boobu boobu bés te boo demee ci biir Banjul dañuy ne nañ dañ taw bi sonal ñu pourquoi parce que taw bi encore une fois day taw ak doole ci diir bu gàtt ci béréb ci benn espace bu limité waaw ci genre taw yooyu la ñuy commencé gis yoo xamante ni peut-être taw bi daanu leen euh, demee noonu tant que ñu am xeetu taw yooyu ndox mi dafa ñuy gën a sonal parce que bu ñuy wax ay wax yi cent cent vingt six millimètres pour ñu xamul lu muy tekki pour ñu mun ko imaginer mooy mètre carré boo jël ba Dakar yàlla ci sotti na fa cent vingt six millimètres ci chaque mètre carré léegi ce qui fait taw bi bu muy taw bu dee temps bu muy taw dafa gàtt ndox mi du am temps réaction déjà pour mu dugg et mieux pire que ça dëkk bu mel ni Dakar fu nekk la ñu pavé fu nekk la ñu teg tali ku nekk sa kër da nga ko cimenté et li may wax nii tamit bépp Sénégalais mën na def exercice dañuy génn doxantu sa quartier wala sa cité nga xool fan lañu gas ni ñu ne fii ndox tabu fii lay jaar cité yu bëri des fois yu bëri ci biir Dakar amuñu ko alors que ñun suñu kër yi kese déjà occupé nañu presque plus de soixante dix pour cent de l' espace maanaam tabax nañ leen ndox mënatu fa dugg suñu kër yi li ñuy li ñuy sànni ci mbedd bi maanaam soixante dix pour cent yooyu nga ñëw sànni ko ci mbedd bi ndëw bu mbedd soit dañ ko pavé soit euh, dañ ko ko goudronné soit dañ ko cimenté bu pare amul benn yoon boo xamante ni moom la ñu prévoir pour ndox mi dem mais conséquence yi mooy lan ndox mi day taxaw e bu ñu amee mu mu taxaw ci mbedd bi kese ñu sant yàlla loolu daal mooy mooy mooy mooy problème bi et donc genre xeetu taw yooyu ak changement climatique yi dañuy faral di ko gis que dafay am ay perturbation yoo xamante ni système global bi moo moom ci système global bi lay laxasu et donc ñun au niveau local mën nañ ko sentir euh, su la forme de taw yu ma la doon expliqué expliqué noonu. Euh, ñu gis nag état wu Sénégal euh, euh, peut-être def na ci effort yu bari ak xaalis bu bari bi nga xam ni souvent dañuy dégg ni def nañ ko ngir xeex wàllum inondation mais terewul pratiquement même scénario la ñuy dund chaque année bu fekkente ni hivernage bi ñëw na pour yow lan moo tax mbir mi di persister chaque hivernage. waaw mbir mi li tax muy persister chaque hivernage moo di. il faut si ñu am courage wax ko mbirum assainissement du lu yomb te mbirum assainissement sax bu dee damay gën a ci wax ji dama naan du lu ñuy politiquer parce que mbir assainissement lu muy laaj ci budget dafa bëri assainissement ci biir Dakar dina euh, laaj budget bu gën a diis que budget normal parce que lan jiitalu ñu assainissement ci suñu dëkkuwaay ñu assainissement toujours il faut bàyyi dañ koy joytu dañuy bàyyi dañuy jaaxle ñu dooroo ne soxla nañu assainissement alors que assainissement war a jiitu te bu giitoo budget day gën a yomb supporter que boo toogee ba jaaxle nga ne léegi xëcc leen seen table yi xëcc leen seen lii léegi dañuy gas dugal fii dugal fii kanu yooyu yëpp ay ay ay ay ay jafe-jafe la ñu léegi euh, nguur yi passé sa laay wax jot nañoo teg ay ay ay jéego yu am solo ci war inondation moo waral tey yëmbal mun nga fa dem ci yenn endroit yi sans problème moo waral Kër Massar mun nga dem ci yenn endroit yi sans problème mais li desa defar moo ëpp foofu li ñu jot waaw comme ni ma ko waxee lu tax parce que Dakar d'abord concentration humaine bi dafa élevée Dakar y a plus de quatre millions de de de Sénégalais lu diis la ba pare Dakar daanaka fépp lañ dëkk fépp foo ne da ngay gas il faut nga déménager loolu donc mu doon loo xamante ne lu jafe alors beneen jafe-jafe tamit léegi da ngay romb yenn ouvrage yi soxla woon nekk ingénieur nga posé sa question waaw lii moom nit ci jàng ne moom moom ingénieur nu mu ko mënee def peut-être ingénieur du du du du problème mais kenn ki ko tabax kii moom nu mu ko mënee moom it donc c'est di ay manquement yoo xamante ne dañ koy constater sur le terrain qui font que jiitu euh, bu ci tegee huit cent milliards huit cent milliards du mun a jur. li doon xaar ci huit cent milliards. waaw loolu tamit c'est yoo xamante ni dañ koy gis ci ci ci ci ci ci terrain bi alors donc euh, li ñu mën a euh, sauver ci genre situation yi comme ni ma ko waxee mooy anticiper Dakar moom ñu màgg Sénégal ak ñu màgg war ñu bàyyi ba dëkk yi concentré wu fees fa nit ñi fees fa dell di door xalaat assainissement assainissement bu rawatee obligé mooy jiitu bépp xeetu infrastructure si le site. donc yooyu moom li jara li jara li jara li jara suuraale la yow tey jii am nga ay solution yoo mën a euh, jox wala euh, junj autorité yi ngir xeex li nga xamante ni euh, moom mooy euh, inondation globalement waaw soxna si pour xeex inondation globalement kon ma ko waxee euh, li gën a am solo mooy saytu bu baax a baax mbirum ndox mi ci yenn yenn yi jàngat ko bu baax a baax suñ ko jàngatee ba pare ñu xool lan mooy yoonu ndox ak euh, ñun fu ñu mën a dégg comme ça cohabitation bi ak ndox mi entre ñun ak ndox mi moom na a rafet loolu mooy lu am solo la am na leneen li ñuy waaye géoprospective maanaam dañu war a anticiper lii xew lii xew euh, fi ak cinquante ans tey lañ ko war a xalaat war ñu bàyyi ba affaire yi dal suñu kaw ñu door a réagir loolu dañuy sonal donc dañuy anticiper xool Dakar bu deux mille cinquante nu muy bindoo am nañu outils yi am nañu logiciels yi am nañu données yi pour xool Dakar fekk deux mille cinquante nu muy bindoo ci nu muy bindoo noonu ci ngay anticiper balaa soo waa dëkk même di ñëw di dëkk nga ne fii dañ fi dëkk fii kenn du fi dëkk buñ fi dëkkee tamit nii ak nii ak nii ak nii lañ koy lañ koy lañ koy lañ koy defaree loolu moo di lu xaw un peu partout waaw encore une fois rappelle que li taw Dakar boo ko comparé yeneen dëkk yi daanaka tokk ndox la alors que yooyu dëkk amuñu problème inondation loolu mooy di lan que euh, solution bi solution yi ñu ngi fi et que problème bi tel que ñu ngi gisee comme problème du problème en réalité si jamais ñi tëgg ci bu baax a baax ñi jox ñi ci xam te mën ko def liggéey bi ni mu waree ñu bañ ko politiser teg ko ci yoon loolu daal bu ñu ko defee en tout cas je pense que mun na mën nañ ci génn de façon de façon de façon générale. li tubaab di wax équilibre environnemental naka la mën a def ngir amaat ko fii ci Sénégal. waaw équilibre environnemental boobu moom am na ci solo trop parce que tey yéen a ngi dégg souvent ci rajo yi ak yeneen ñuy wax ay wax ville durable. mooy boobu dëkkuwaay bi nga xamante ni lu bëri lay lay lay intégré de telle sorte que jafe-jafe ñuy dund yéen dañ ko am. waaw donc suñu dëkkuwaay naan na dëkku taax yi rawatina. dañ ko war a xalaat war ñu di subir suñu croissance urbaine dañ ko war a xalaat porter ko planifier ko alors buñ ko xalaatee loolu moo ñuy permettre boobu xalaat déjà ñu ne lan mooy wàllu ndox lan lañu la ñu war a bàyyi ndox mi te du ndox mi kese nga gàncax ci biir dëkkuwaay bi lu am solo te boo demee Dakar zone euh, naturelle daanaka amatul forêt de Mbao lañ ko defee tuuti technopole après lan moo des jeex na dëkk bu toll ni Dakar nga am quatre millions de de de de Sénégalais ñuy ginaaw ginnaaw Rufisque di di xuus di xuus amul fooy laal ci biir Dakar te doo gis ki la ne fii fi moom na fi war a tabax donc loolu dañ ko war a anticiper anticipation mooy lan toog étudier espace bi xool li ñu mën a laal li ñu war a bàyyi environnement bi ci boppam parce que lépp loo bàyyi environnement bi ñun ñii lay njëriñ d'abord je lépp lu ñuy bàyyi environnement bi ñun ñii les les les les les les njëriñ beneen aspect puisque maa ngi ci langaama Kocc euh, kàllaama Kocc autant pour moi am na solo am na solo ñu rappeler aussi la responsabilité du citoyen le Sénégalais lambda pour ne pas dire le Dakarois en particulier dañu am responsabilité bu baax a baax a baax ci li li ñuy dal mooy lan comme ni nga ko waxee état baa ngi def as tuut ci mbirum assainissement mais ci astu boobu ngay gis benn ouvrage bi état bi taaba taaba ba defar Sénégal yi Dakar waaye en particulier ñu ñëw di ci këpp mbalit ñeneen ñi di créer seen réseau clandestin di ci sotti ndox boo xamante ni euh, non seulement fu ñu ko jaaralee jaaduwul parce que si yaa ngi sàcc kon ñu koy defaree bu baax dañuy fragiliser ouvrage yi donc y a des yoo xamante ni euh, dañ ci war a taxawaat bu baax a baax a baax baax bu ñu bëggee jàppale euh, nguur gi et suñu jàppalee nguur gi suñu bopp la ñuy jàppal la ñuy jàppale donc euh, ci gàttal dañu war a euh, respecter le bien public notamment ouvrage yi c'est pas parce que mbirum assainissement la que doo ko respecter lu la may sànni dafa am yoon waaw ordure ménagère daam fu mu war a dugg eaux fu mu war a dugg eaux pluviales daam a dugg te loolu bind ouvrage bi moo la mën a fii lii ak lii ak lii ak moo fi jaar léegi puisque ñun trois mois de pluie la am kese pour ne pas dire peut-être même même deux mois si on dans la zone nord dix mois yi des on est saison sèche lépp la ñuy fàtte y compris fàtte ne ouvrage yi bu taw bi taw ñoom ñoo ñuy sauver donc la ñuy def lépp ñu am nañ ko fay sànni donc mu doon loo xamante ni euh, sensibilisation bi nañ ko war a euh, wóyal profiter ci seen antenne bi pour revenir ci cet baax na trop yu naan état état état état yéen la ñun la ñoom la mais aussi ginnaaw état man na man na mën a baax na tamit may euh, situer sama responsabilité pour ñu mën a mën a avancer. docteur Edouard euh, Diouf euh, Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. maa ngi lay jaajëfal soxna bi. may fàttali expert nga ci wàllum eau ak environnement.